mbokk Samagal bi bokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ak di bal ak di leen wax ne tey ñu ngi fii ci bergerie Khadimou Rassoul ñu koy wax BKR ndax ku ne xam ne ni BKR ki ko taxawaloon ñu koy wax Omar saw yàlla def na li gën ñu ngi koy ñaan ñaanal yàlla yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana jéggal ko ay bakkaaram di wax ne nag équipe bi nga xam ne moo doon liggéey ak Omar Sow am nañ yéene àggale liggéey bi nga xam ne moom la fi euh, Omar saw daan def ginnaaw Omar Sow daan wax naan man dee rek moo may tàkk ak élevage tey yàlla jël na ko waaye nag macha allah loo li koy wane mooy balaa muy dem defaraat na bergerie bi ba noonu ko inauguré kon tey bu yàlla defee mu dem euh, yéene bi mooy àggale liggéey bi kon nag équipe mu doon àndalal muy DG mbay Diène mi nga xam ne moo fi nekkoon nga ànd ak équipe bi. jéem a continuer liggéey bi macha allah ba tax na ñuy wax ñëpp ni euh, ubbi wax nañ suñu bunt fii ci bergerie Khadim Rassoul kon ñu ngi leen wax ni képp koo xam ne rek am nga ci say xalaat wala suggestion ba proposé bergerie Khadim Rassoul ñu ngi leen di ubbil bunt macha allah ni ko Omar Sow daan defee ci waxtaan yi deglu beeg partagé beeg lépp lépp lépp macha allah plaisir xaalis Mbassou pare na pour liggéey ñëpp kon bokk euh, di wax rek ñu ngi leen jox dig daje fekki fan incha allah ñu def benn émission boo xam ne dañu waxtaan ci li ñu war a dëgmal ak fi ñu war a jëm yëpp. di wax képp koo xam ne yaa ngi ñuy teewlu rek ngay ñaanal waa Bergerie Khadim Rassoul ak équipe bi yàlla woyofal leen yéen bi ba euh, ñu. mën a euh, àggale mbébétu Omar wu jërë ngeen jëf. open it.